Girdolel dolel njang mi ak mi société bi di Petrosen doon amal remise de kits scolaires chez école Doudou Mbathie lu Cré protège stylo gomme ak yeneeni article Lolé yépp ci téwayu directeur ba maire bu Anne Beller wa waa ak mbolom élève Ki di directeur ba di wuyoo ci turu Bokar di wone mbektem bolé ci di rafetlu ndimbalu wa Petrosen dougal ci seeni école lu may rafetlu la parce que xaaruma woon ne sax ne nit na ko fi mën a am mais buma ma jékkee gis ndimbal gu doy ni ñëw ñëw fi tey jii lu mënuma leneen lu dul rafetlu bon di ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant aussi wa wa Petrosen parce que lii mënoon nañ ko bañ a def mais bu ñu jékkee-jékkee def ko c'est parce que aussi seen coobare la ak envie bëgg a def bëgg a defar moo tax ñu inscrire seen lépp di ñuy def boole ci école école Doudou Mbadj donc di leen sant di leen gërëm euh, di leen ñaanal aussi une euh, entreprise nous ñoo xam aussi mais en tout cas il leen ko ñëpp. ay kits euh, kits bon papier bi mais liñ aussi lu valeur parce que nous avons, depuis CI ba CM2 xam nañu école bi ñaata élèves donc euh, en charge tous les élèves même bu doon ben cahier par élève dara la waxatuma la nak élève bu waaw ndax nee nañ ma aussi am na lu des ñëwagul camion bi moo demoon feneen rek mais ñu ngi indiwaat leneen donc nee nañu aussi lii ñëw moo ëpp li lii nar a ñëw moo ëpp li ñëw donc euh, sant yàlla xam nga ne donc xaalis bu bëri dugg na fii waaw même bu doon 100 francs sax sant yàlla ndax dafa ñëw rek doole si ko mais comme aussi dem na ba ñi koy xayma ay junni junni junni junni wala 1 million donc loolu euh, sant yàlla lu baax baax di leen jaajëfal encore du motivation obligation la di ay cadeau Joseph Fombédou di njit la. gisewuma comme motivation pour ñun obligation la dañ ko wara def so deuke so deuke fi lu yag da nga wara a ñit yoo donc motax euh, suñ togué ci atti dañuy xol lan la lan la commune bi bëggu ñu ñi liggé waxtan sék ñom ñew jappalé len bi pa defon nañ ko ci santé tay mom affaire éducation là motax ñu né xaaral ñu ñëw jappalé leen en terme de kit scolaire pour élèves comme nu ko waxé ñun fi lañ dëkk donc il faut ñu jappalé commune bi ñu ñu jappalé commune bi su fekkee dañu wara def partenariat mun nañ ko mun nañ ko formaliser lolu formalisme rek la parce que yag nañ diko def fi té yeen xam ngeen commune bi xam na si dara donc élèves yi xam nañ ci dara wa poste de santé yi xam nañ si dara population yi xam nañ ci dara gëstu bu mujj bi moy Covid bi joxé nañ fi ay masque donc su fekkee ne léegi waa commune bi dañ bëgg ñu formaliser ko nous on est prêt pour formaliser ko. Babacar Mbengue du maire gox ba di ko rafetlu boole ci di ñaax mbooleem entreprise yu nekk fii ci Hann def jëf Unimel. ni mel. tey éducation moo ñu boole mais euh, Petrosen yàgg na di yëngatu ci domaine yëpp muy santé environnement social ak yeneen ak yeneen donc c'est vraiment pour vous dire que li nga xam ne moom nañuy wax euh, une entreprise citoyenne euh, Petrosen loolu la Petrosen ñi ngi ci commune bi yàgg na mais mun na ne seen présence dafay présence boo xamante amal na njëriñ askan wi mais amal na njëriñ bi surtout dëkkandoo yi donc li nga xam ne moom lañ mën a apprécier mooy fi ñu dugal loxo tey ci contexte bi ñu toll muy éducation éducation c'est un secteur qui est assez sensible mais li may faral di wax foo munti mën a dem dañ la naan les secteurs prioritaires la euh, santé éducation mais moy ñaari secteur yo xamantene ne ci parce que du doy et euh, dañu soxla taxaw donc man en tant que maire mm. avec les élus le conseil municipal toutes mm. les populations toutes les associations dañ di di encourager aussi les entreprises de la commune parce que c'est pas normal que commune bu mel commune en Bel-Air doon commune Sénégal bi industrie c'est la commune de Anbeler et que da ngay wàññ entreprise yi nga xam ne dañuy def effort population yi maanaam seen i dëkkandoo donc lolo aussi dafay loo xamante ne appel pour ma yàgg di def la mais du ma kattataay yi di def li may faral di wax na ñuy jël exemple entreprise bu mel ni Petrosen jël exemple entreprise yu ni LSE c'est-à-dire que seen def-def mengo ak la nga xamné tay ñun mom la xaar donc vraiment dañ leen di remercier di remercier encore bu baax baax toute la direction générale l'amicale en tout cas des agents et employés de la Petrocène, de remercier les associations parce que l'effort bi dafay dynamique bu relever les défis dans tous les secteurs éducation la santé démb environnement sport ainsi de suite ainsi de suite. monsieur Baldi, dit enseignant Fofu, ca Doudou de profité de occasion ba ngir contexte Covid bi ñu toll ak élèves. li mooy les mesures barrières yi nga xam ne ni mooy tax ba feebar bi du dugg ci école bi waxatuma laa dafi di wàll di law si biir école bi ñu ngi koy jël waaw balaa xa benn xale bu nekk balaa ngaa dugg ci école bi dinañ xool sa température ba pare nga dugg si biir di nga raxasu classe aussi am nañu ay gel ba pare distanciation sociale bi aussi ñu ngi koy respecté waaw moom la ñuy wax distanciation physique ñu ngi koy respecté ci biir classe te xale yi ku nekk da ngay takk sa masque